examen bii di BFM gannaaw ba mu tàmbalee ci suba foofu noonu sa lycée bu Hann ay ndaw yi nga xamante ni lu leen taxa a jóg moo di boobule diplôme ñenn ci ñoom di xamle épreuve yi yomboon na lool. épreuve yi kii nii sujet 1 bi yomb na def naa daal lu ma mën. Hmm. ah sujet bi de abordable na naa ñëpp war nañ see mën a am moyen bi surtout. ci Mariama ba wax. œuvre au programme bi ñu ñuy laaj entre Ramatoulaye ak Aïssatou ban moo si suñu héroïne préférée ak ñu wax loo xamante ne moo leen di différencier ah, ah neexoon na de waaw. yaakaar nga ah, yaakaar naa ko kay. bile candidat jàpp ne moom beneen sujet bi mooy bi ko gënal ndax si boobu la gën a gis boppam. waaw œuvre au programme bi maam matière yu ma doon jàng moo bëri quoi léegi léegi temps bi du la permettre ngay jël di liir affaire yooyu doom temps pour lire quoi yow. leçon yi rek un dafa bëri mooy loolu doom jot di xool yeneen yeneen lii quoi di lire ay œuvres yoo xam ne waaw dafa gudd sa leçon histoire zo SVT yooyu yëpp ñëw fi am yoo xam ne doo ko mën a continuer quoi. waaw saison 2 bi laa mujjee. saison bi lan lay wax. waaw saison 2 moo ñu wax si ay bien matériel affaire yooyu noonu de l'homme quoi mais 11h. waaw ah ndax bind nañ daal en tout cas bind de. examen bi di BFM gannaaw bañ ko tàmbalee mbooleem jumtukaay yi nga xamante ni waroon nañ ko jël kii di gouverneur mi ngi xam ne ne jël nañ ko ngir rekk yile examen mën a am ci jàmm ak salaam